mais c'est normal c'est normal ce sont nos voisins et et ñun nii dañ nekk référence comme comme dit Greg parce que euh, le titre de champion d'Afrique ñun ñoo koy yóbbaale au Euh, euh, en, donc tout le monde a, a de jouer le championnat d'Afrique et à bu nekkee sa voisin donc euh, c'est normal que ñoom ñu bëgg ñu bëgg jouer ak ñun mais jouer ak ñun aussi euh, peut comporter des risques pour ñoom mm-hmm. parce que le Sénégal quand même si na si benn niveau de de performance boo xam ne euh, moom ñun ñu ngi xalaat ne Euh, ñoom euh, euh, match yi mën na mel si ñoom mais Sénégal léegi ku muy jouer n'importe quelle équipe aussi dina xam ne Sénégal aussi ça court c'est c'est des risques de jouer contre moom mais li ma doon wax li ngay wax ni day confirmer li ma doon wax ne soulagement la si awam parce que suñu degré de motivation ak humilité bi Aliou doon wax léegi ak suñu degré de motivation daf ñu koy mun a mainteniral au niveau souhaité parce sooy dem en tant que champion d'Afrique euh, euh, tout le monde veut veut veut donc euh, yow soo amee poule bu difficile noonu ak ay adversaires qui sont des voisins et qui rêvent de te rencontrer donc à partir de ce moment sa motivation day naturelle mm-hmm. mais aussi da mun a permettre nga garder humilité bi nga xam ne moo moo approprié pour mun a am benn niveau de performance bi mm-hmm. donc mais que eux i i qu'ils jouer dafa nekk après tirage rek mais je suis sûr que su fekkoon ne Euh, ils avaient le choix pour de tirer les équipes contre lesquelles euh, ñoom la ñu war a jouer ci Coupe d'Afrique bi je suis sûr que ne Sénégal du ci bokk